ziar nañ la. maa ngi lay delloo ziar di leen bëggee bu baax a baax. am nga jàmm. maa ngi sant yàlla. bi rafet na de. rafet naa ko waaw mënoo bàyyi wala mënoo bàyyi. gannaaw. jaam jaam jaam jaam. jaam jaam jaam. xaaral ma pare xaaral ma pare rek. Ah. gaay gaay gaay gaay yow. jaww la waaw jaww la waaw gannaaw bu ko topp waaw mais ziar naa la. maa ngi lay delloo ziar. mais t-shirt bi dafa rafet. waaw sant yàlla rek. xale yi moom suy bëre moom Baye Fall mooy defal li taalib sëñ Modou Kara bi mooy def li waaw. moo may defal li vraiment sama xarit la sama waay. tey lan lañ mën tey lan lañ mën a xaar ci Alioune Seye ci côté bëre. ci côté waaw li ñuy xaar Alioune Seye nekk xale bu yaru su jógee xoolal mbooloo mi tubaarkàlla mbooloo mi ko topp bu nekk xale bu yaru xale bu baax joxe cër su jógee ñëpp jóg di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy Alioune Seye nee naa la lambu moo tërëd rek waaye heure boo na fekk mu dépassé fii Alioune Seye bëri naag ku ne Alioune Seye ku mu bëriwul aareen ah. bëri naag moom mbapat moo tërëd nii rek combat bu spécial combat bu dangereux Modou Anta non non non Modou Anta du Thiès looy wax ma dimbale la mais liiru kala daan liiru moo fi daan dolf ma door commissaire mu daanu liiru moo dóor waa jooju mu daanu. Matane Sirbane numéro 2. akan kan. Matane Bocé numéro 2. ak kan. Matane Tapha Italien. ak kan. Matane Jadi Jadi. ak kan. Matane Sare akan yokku. ak kan. Matane Iba bu Njaareem. ak kan. akan Yaw Jabi Kaolack. akan kan. Matane Tapha Italien. ak kan. Matane Seck bu ñuy sew bu Balla Gaye ah mu doon ko mu jaaxal. ak kan. kon kii dama ko bëggoon dimbale may ko chance. yow li fi yëm yëpp li fi lim yëpp ñaata victoire la. kenn xam lu mu toll. kon yow bari nga ay combat ci lamb ji. 2004 ba 2024 ñaata at la. bari na. 20 ans bari nga ay victoire lool. kon maa ko seere. kan ak la daal. la ilaha illallah siko yi ak kan ak bursin ak kan ak wuli mooy tumaa lu <laughs> mais mais yow gars yi ne lamb yaa si gën a bëri defet xam nga bu ma doon waxtaanee da nga koy wax si bëroon defet ah. kon sama tur fay na si lamb 2004 ba 2024 ñaata at la ma amul bëri vingt ans de carrière ah. ban mbër moo ko fi géré nañ koy wax la ma def tey si la am benn mbër boo xam ne su def Gambien mu tànn hmm. mu jël intention su daan sel ko may Sénégal mu daan ma sel ko may Sénégal ma sel ko may kan foofu laa bëggoon ñëw parce def xam waaw dafa marqué monde lamb waaw alors que yow waroon ngaa bokk ci ñu CNG woo ne leen kaay ba nga ñëw ñu ne li nga def dafa rafet mais Ama Baldé lañ ko dafa am gën a lan waaw xam ni ku ne sa wërsëg ah ah. ndax mbir yaa di fekk cent millions man may fekk ay cent cinquante mille deux cent mille francs xam nga ah. bu yaaw jaan njëkk fee créé te bu ñu nee ba di woo seen mbër loolu seen wërsëg la est-ce que nekkul lu fi Ablaye Wade noonu lii rek la yaa yaa jàll. lii dafa mel ni ñemewul laa yaaw de ñemewu ko de. yaaw yaaw yaaw taxal yaaw taxal yaaw loo xam ñeme luy. waaw dama ko man. taxal taxal soo ko. taxal taxal yaaw yaaw. loo xam ñeme luy. dama ko man. boo mënee. mais yow tey yi promoteur bu la seet si woon da lay jox liiru ndax pare nga pour bëri parce que Seydina Mohamed kon ma daan ko jël bu rëy ak nu mu toll nii bu Sénégal di coow mm. ndax lii dama koo xam dama koo kóoru dëgg la li ma kóoroo sama numéro téléphone noonu laa kóoroo sama diggante jàmm kon bokk ma sabab ndeysaan aja mbër ziar naa la delloo naa la ziar yaa ngi am jàmm maa ngi sant bu baax tey sa teewaay lan la sama teewaay damaa indi mbër ndeysaan damaa indi Modou Lo bébé Modou Lo bébé Modou Lo waaw desa bu yëmbal dëgg la waaw ah, moom laa indi am na solo mais tey gis nañ combat bu spécial bi si diggante ki nga xamante ni mooy Alioune Seye 2 ak Modou Anta boobu làmb nan nga ko gisee en tant que mbër combat bu neex la sax ah waaw combat bu neex la parce que ñaari mbëri ku si ne dafa xeeb sa morom te am dëgg la te combat bi nag 50 50 la 50 50 bu ñu xool ne Modou Anta si défaite la jógee bu day bëgg a ñëw pour rectifier wu. dëgg kon li mu ñàkk a contre Diène Kairé day bëgg a ñëw pour rectifier wu. dëgg comprendre Alioune Seye tamit bëgg ñëw pour jox dem si kaw. dëgg la ah, loolu mooy daal combat yi moom combat bu neex la wax fa dëgg yàlla. lan lañ mën a xaar ci côté bëre ñoom ñaar. si côté bëre bëre bi moom ñoo ko séddoo ñoom ñaar ñëpp waaw. lu tax parce que ñoom ñaar ñëpp duñu ay xeexkat ay bërekat lañ. dëgg la dafa fekk combat mi mujj mooy Issa Pouye moo jos ba tey bokkul adversaire bi mu amoon Issa Pouye jos ah kii du benn comprendre nga bokkuñu ay niveau quoi parce que Modou Anta reyantekat la waaw moom boo ko cokkaasee si xeer dala siy fekkise comprendre kon fofu war nañ mëna naxandé mais gis nañ ki nga xamantene moy Modou anda nu muy bëré non lay xéxé nak cette fois ci nak loolu la wara def ci digënde mak aline sey waaw parce que mom moy moy moy moy bo xolé mom Modou Anta moom mooy euh, mbëru Thiès bu mak comprendre nga sa yu ñëw Thiès moy top ci ginnawam te tamit bu jogee da ngay xam ne tey dëkk boobu day jox comprendre nga kon bu ñëwee moom njàmbaar rek la war a wane moo ko bu gars yi tuddee ko Baye Fall bi Baye bi kenn du bàyyi ndeysaan noonu la demee Alioune mu nekk mbër moo xamante ne ay stratégie lay teg mhm. lambam da koy benn bennal ndax mun na ah, moo ndax war naa mun a agressé ki nga xamante ne mooy Modou Anta bañ ko may mu jàmm waaw xam nga Alioune Seye dafa départandoo boo xoolee ñu ne la Alioune bëri na Modou Lo départandoo ay mbër yu mag tey boo xoolee retard mu xawar am retard tuuti si làmb mais fexe na ba jëlaat place am temps bi mu toog bëriwul woon bari mu dem ba jëlaat place kon place am bi mu jëlaat moom xam na lu ko may tamit na loolu la lay indi loolu la combat bi dina gaaw combat bi man na gaaw uh-huh. si bëre mën na yéex tamit si xeex bu gaawee ka ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp bu dee si xeex tamit xam naa ne combat yi mën na yàgg bu ñuy xeex bu ñuy xeex waaw gis yenn combat yi moo ngi taxaw Quench combat yi promoteurs yi ñoom ñooy taxawal ay journée ba tey Quench déggaguñu journée am taxaw na lan mooy problème mu Quench. man problème mu Quench mooy problème mu promoteur laa am rek. ah parce que samay lamba gañ amateurs yi ñoo ko bëgg gañ. man maa ngi taxaw maa ngi toog di xaar rek. combat yi di taxaw te sa combat taxaw loolu la la lay. non maa ngi toog di xaar lu ma yàlla seet ma jël. ama ah. tamit làmb moom sa wërsëg da siy nekk. amaana bu sa wërsëg nekkee rek dinaa ko lek comprendre nga man benn mbër laay taalal chance bi mu nekk Lac de Guiers mu may ma chance rek laa koy ñaan. Lac de Guiers numéro 2. si respect nag moom nee na damaa bëgg sëñ Babacar moo tax mu may ma chance mu bëgg ma may chance nee na nga confirmer rek te moo xam ne ñoo bokk sëñ Babacar. aja jaga waaw la demee. waaw. bu ñu li ñuy wax ñun ay lebu lañu xam nga lebu ngor raj nga nga mën a ji boo ko jiyee ngor ah woyof rey nga ka comprendre nga ñun ay lebu lañu mënuñu topp si ginnaaw kenn di ka woo wala di ka di ka leb wala dara parce que suñu dignité sax mooy ñu ko loolu boo ko defee sax da ngay génn si lebu loolu raj moo tax man mënu ma ñaan mënu ma leb ku ma wax sama soxla fekk nga doon sama nit dëgg dëgg dëgg dëgg ma am fu ma la teg mais barey lu may wax nit soxla comprendre loolu moo tax mais maa ngi sama ruxu di entraîné lu ma yàlla séddee si làmb ma xam ne loolu mooy sama wërsëg comprendre mais est man man sëñ Babacar ku ma si mépp am ma ku ma si nax tamit da may nax rek ah! man ku ma jaar si billaahi barke sëñ Babacar ku ma jaar si sëñ Babacar moom da may rey rek loolu moo am de man na ma si nax dinaa kan nangu sax mu nax ma mais déggoo li ma la ku ma jaar si sëñ Babacar am ma loolu moom dafa leer parce que dama kaa bëgg a gëm mu am fu mu jaar ak man ci lu wér loo xam ne dund naa comprendre nga bi ñu ngi koy ñaanal yàlla leeram. taasu si barkeem di profité tamit di nuyu. di profité nuyu suma xarit Moustapha Sy bu sañ Mbaye Sy Abdou. muy suma seriñ di suma xarit di suma waay di suma lépp ku mel ni dabandooy fiyee kan ba si Moustapha Jamil mu ndaw man déggoo li ma la man Tiwaawan dama faa bokk déggoo ma de man sëñ Babacar dama boole Tiwaawan ñu bëri sopp ma ndax moom bari na ñu ma xam bëgg ma sëñ Babacar lañ ma soppee waaye du làmb day ñaan yàlla nag sopp googu yaa naka yàlla di def ay ndam toujours. am na solo gën ci ñu déggoon sa biir wax buñ la jël see nga ne sa diggante ak Franc si yow la dépendre yi ñaar ngeen ko te ñu gis nañ sa combat taxawagul est-ce que doo jël Franc nga bëre moom. non man xam nga Franc mosuma ko bañ. dëgg la dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax mosuma ko bañ. dëgg la nee na moo ma raw na dem bëri yee ku ko nee. mais nee ma fi di nga ba deux mille vingt cinq élection yu njëkk ya. yaa may dégg. waaw bu fekkee daa am ku muy bëreel na seet na dem jëli la de guerre na dem jëli ku ko nee. mais état yéen ñaa yéen fi sës. moom la amateur yi di wax mais déggoo li ma la dama xoolu ma ko sax. xooloo Franc. billaahi wallaahi xoolu bul ci xalaat sax loolu moom amul sa wax. moom kon nga damaa xeeb na dem jëli ji na dem bëree Balla Gaye. nee na booy nekk yëpp xamante nañ. waaye na bëree Balla Gaye wala mu xaar Sa daan bu pare kon que moom la bëgg a bëree. ah na xaar Sa Thiès. mais yow instant moom dara. lan laay wax si moom nee na Eumeu Sène ak Sa na dem bu ama Sène daane mu bëree moom bu Sa Thiès daane mu amagul combat yow yaa du ma taw fii di nga may bës dara. Franc am bës ba pare nga naan doo taxaw fi ko may bës. man nag bësam dama si dul dolli <laughs> dégg nga man maa fi di toog di entraîné te nii ñi ñi eh, pro di wax amateurs yi. Ah. suñu bés nii la mos a demee biñ tasee Joal ma koy yéenu ñëpp dañ ne man ma ko daan ma bëreloo ko bu mu bàyyi ma yéenu ko amul dara lu may eh, wax sax si moom. waaw. la dëgër de. waaw waaw monsieur la dëgër. waaw moom moom si waaye naa sawar tontu. la na ma may sax gis ngeen la dëgër. ndeysaan kenn daanagu bu mu jaaxaan. dëgg am naa pexe yu ko daan bu mu jaaxaan. yow mii sëñ bi billaahi. am nga ay pexe yu mën a daan la dëgër. la dëgër bu arbi bi na pire dama koy fi mu taxaw. waaw. la dëgër bu ñu bëree maa moom du niir. mais gars yi naan Lac de Guiers dafa war a bëree xam nga Lac de Guiers ñemewul bëri moo fi am dëgg la boo xoolee tey Siteu bu muy bëgg a Balla Gaye dafa war taxaw dëgg la comprendre nga guy gi mu jël Ada Fass Bombardier mu ngi jël Reug Reug Boy Niang Balla Gaye da nga mayoon chance Sa Thiès am na seen mais Boy Niang jaar na fi Siteu jaar fi keneen ak keneen jaar fi déggoo nga ne da ngaa mën a Lac de Guiers dara yow man si Lac Rose laa jógee waaw yaa may dégg kon man làmba ji sama làmba dafa tijjeeku mu neex ak mu naqari. dëgg la yaa may dégg tey Lac Rose ba ne defee mbër yu bëri. te yàlla may na ma ndam si koom. comprendre ma ngay ñaanal jàmm ak salaam ak li mu bëgg si xolam moo ko am yàlla defal ko. ah yaa day day ba day am. la degeer moom ki ngay njëkk a daan ba mu jaaxaan yaay doon yonentab làmb ji. ta ta daa jël gars yi di ardo lool loolu nan nga ko gisee. la degeer moom ku moom foo dem ardo. Ah. man ba ñu ma dem ardo man naa may chance rek man xam naa bu arbitre bi na yi mbapat. mbapat force. loolu la bu ñëwee fii tey maa dem ba si moom nuyu nga nag garaam may ma chance si njëkk. waaw si njëkk te yàlla ndeysaan maa ngi fi daal di xaar man bu làmb moom sawaay nattu la si man mooy li may wax macha allah dama jàpp bu sama wës ak neere dinaa bëre noonu laa ko jàppee mais bu gars yi samay fans yi tamit bëgg nañ ma bëre mais naa toog di xaar parce que tamit bu sama nit mu ngi yóotu dara fekk gënul si moom man lépp luy ñëw daal yaa na doon lu gën si man te muy doon tamit lu may am ndam macha allah waaw la deme ana oto bi bara bayi si biti ah Modou Malick Seck directeur central bu Bargny ndeysaan moo yëkkati oto may ma ko dëgg la ma jëlaat oto bi delloo ko waa Bargny rek xam nga waa Bargny nag yowaat taxi Bargny ndeysaan dawal di hall kan mau tahu si tali bi pour ma mën pas kejar parce que dan sama xaalis dëgg la dañ koy yëkkati may ma ko dëgg la boo ko gaan nit ñi rek laa man loolu lan la lan lay mais def ma dara sama wërsëg rek dëgg la parce que oto buñ ma ko mayul woon sax naa ko jëndal sama bopp ndeysaan waaw dëgg la waaw noonu la demee am solo ñu ngi lay mais di di nuyu waa Bargny yëpp ñun amuñu lu dul Bargny moo ñu gënal luñ mën am si àdduna te li ñuy wax suñuy xool lañ koy tubbee may profité tamit di ñaanal suma gars yi nga xam si géej yàlla feeñal leen di profité di ñaanal suma gars yi nga xam ne tamit dañ dem Espagne yegg yal na leen yàlla may liggéey ba kenn ku si ne booy ne nga dugg sa kër parce que dëkk bi moom métti nit ñi ñoo amul si luñ jàpp may bëggee ñi nga xam ne day jaay ataaya suñuy moromi jeunes di jaay ataaya ay café toog si mbedd yi di ko lijjanti ak suñu moromi jeunes yi ambulant comprendre nga suñu moromi jeunes yi def ay bi ay site internet pour bëgg a wut comprendre nga parce que liggéey moo fi amul bu ñu gisee suñu morom nag muy góorgóorlu nañ ko ñaanal encouragé ko maa ngi ñaanal képp kuy jeune te bëgg ay ambition teral sa waajur maa ngi koy ñaanal adduna bi yëpp di ko ñaanal yéen ñi tamit nekk si làmb coono bi ngeen am si làmb yal na leen ko yàlla fay ba ngeen am si kër parce du làmb mbër rek moo war a am jaaykatu ndox mi sax dafa a kër waaw noonu la demee